salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz nuyu leen ziar leen di amati mbégte ak bànneex di ànd ak yenn saa su nekk nee leen Dakar Buzz ak askan wi la fi nekkal tey nag ci seen entretien spécial ñu ko sekk ak nga xamante ne si nag moo di Eva Yao moom nekk ab assistante infirmière d'état ñoom ñooñee nag am benn problème ba nga xam ne ñu ngi koy dund jamono ji. ba tax sax nag ñoom nag ñu daal di ne woon doxantu fii ñu fa yéene waxtaan ci loolu ngir xool nak rek la ñuy daal def ba indi ci ay saafara ci loolee sax na ci seen problème boobee sax na bokk na ci ñi nga xamante ne si nag ñoo di ay infirmier d'état ay assistante infirmier d'état ak hygiéniste ñoom nag ginnaaw ab recrutement ba nga xamante ne si nag Fonds mondial daan na ko woon def ci atum 2022 ñu bokkoon ci recrutement yooye di seen problème nag bokk na ci dañoo toog ay weer rek ñu leen wante ñu daal leen di dàkk sans pour autant ñu daal leen di notifier tung ne nag du teew ñu nataal yaawa dina ci daal di gën a indi ay leeral ñu daal di koy bàyyi mu daal di présenté wu yaawa ñu ngi lay nuyu di la ziar aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salallahu ala seydina muhammad salallahu muhammad salallahu muhammad salallahu muhammad maa ngi lay fay jama mun nga présenté ah, maa ngi tudd Eva Débora Yao mhm. ah, assistante d'état mhm. ah, ñu affecté ma Matam hôpital régional Matam mhm. est-ce que mën nga ñëw ci euh, problème bi naka la demee ak lan moo sabab tey say tànk nga ñëw Dakar Buzz ngir waxtaan ci ak jooytu fi sa problème. waaw dañu recruter woon 2023 ci euh, Fonds mondial. Mhm. ay assistant infirmière infirmière d'état ak hygiéniste mhm. ñu avant recrutement bi jour signature bi euh, au niveau du ministère mhm. ñun dañ signé ndax laaj nañ leen lu leer ba xam ñun suñu avenir ëllëg ci 10 mois yi ñu tontu ñu daal ne ministère du jël di bàyyi. Mhm. bu fonds bi jeexee ak euh, contrat bi jeexee ak fonds bi. Mhm. dañ leen ñuy continuer reverser au niveau du ministère wala fonction publique. Mhm. ku dee ak sa bàmmeel yàlla rek tax may wax. aw ma leen lu ma leen di sosal. magum jëmm laa. sama benn tànk mi ngi fii sama bàmmeel benn tànk bee ngi fii ci àdduna. dégg nga ñun ñëpp am ñu doon hésité sax ñu ne signé leen ñiy bàyyi seen de ñiy bàyyi seen CDI. yi nga ñun tam daal di signé li tax ñu engagé wu en espérant que duñ duggee ministère. Mhm. dañu am euh, ba léegi yeneen opportunité kuy mën a jàngi jàngiwaat kuy mën a def leneen defi leneen. Mhm. ndax avenir bu sûr la. Mhm. moom lañ daan xalaat dugg ci ñoom. après tant d'années euh, de service. 17 ans de service def nañ ko de plus. man mi def naa 19 ans de service. sans embauche. sans embauchement waaw stage en stage intérimaire prestataire contracteur Ah, ba tey jot ci prestation bi prestataire bi ma jot ci ministère tey ji mhm. waa tey euh, seen euh, contrat bi ban moment euh, ngeen ko ngeen ko signé waaw ah, contrat bi ñu ngi ko signé ak ban contrat la leen ban genre contrat contrat prestataire la ñu signé waaw mhm. ah, ñu ngi ko signé mars mhm. mars lañ ko signé waaw ñu dem ci région yi ñi am na ñi ñi ngi Ziguinchor ñi ngi Podor Kaffrine Matam gi ak ci àllu Matam yi ñu ngi ñu nga fa ba tey ñu ngi coincé wu foofu toog mhm. ñëwaguñu vous étiez au nombre de combien bi ñu def recrutement yooyu non bëri woon na mhm. bëri na bi ñuy signé foofu bëri woon na waaw mhm. ah, bëri woon na mënuma la wax ñaata parce que chaque dañuy jël par vague par vague jour bu nekk bi ngay ñëw di signé waaw ah. yow si ban région lañ la yóbbu woon ak ñaata temps def si région boobu. maatam laa nekk. Mhm. def naa fa presque at léegi ni mhm. def naa fa at. Mhm. am na ñu ma dégg ne ñoom sax bi ñuy dem euh, dañoo yóbbaale woon seen ay njaboot bu ñu demee foofu ñu inscrire leen si école yi. waaw man ñun ñëpp suñu collègue yëpp. ndax nit moom li ñuy wax njaboot du bàyyi. njaboot du bàyyi njabootam ginnaaw dee rek yàlla na yéex. man mi di wax ak yow ci laa bokk damaa yóbbu samay njaboot installé leen. Mhm. d'après fii ñi ngi nekkoon dakaar ci privé catholique yu baax. Mhm. mais dama dagg seen jàng dem ci privé ba. Mhm. ma engagé wu signé. ma jël sama njaboot ma yób ma yóbbu leen. parce que kuy daw tamit sa njaboot moo tax ngay daw ëllëg. li doon ñun rek la amul problème waaw li ñu suñu borom jox rek ñu jël. est que ñu ngi leen doon fay salaire bu normal bi nga xam dina mën a souvenir seen besoin. waa tane woon na salaire bi tane woon na parce que dañ daan wax nii su boo léegi beneen contrat du ñëwee dina tane li infirmier war a am yëpp nañ ko am. Mhm. tane woon na daal salaire brut la daal. brut la Uh, 237 mhm. infirmier d'état cinquante mhm. plus motivation mais nag ci biir infirmier yi nekk centre de santé poste yi seen motivation 10 000 francs la wala 13 000 du baaxee ba baax waaw du baaxee ba baax 10 000 francs 13 mille la mais ñun au niveau hôpital régional bi motivation bi tane woon na tey est-ce que mën nga dellu si waat ci anam bi nga xam ni moom lañ leen euh, dàkkee. Mm-hmm. est que mën nga ci ñëwaat ñëw bu leer. waaw dañuy liggéey ba mois de décembre ñu espérer renouvellement contrat yi. ban mois ngeen commencé woon d'abord. mars mars ngeen commencé mars lañ commencé ba décembre ñu espérer renouvellement contrat yi. Mm-hmm. moment boobu ñun gisuñu dara mais waa ISMEA yónnee nañ fa waaye ISMEA Cobra di signé. Mm-hmm. waaw. léegi ñu toog ba ñu ne ah garaaw nañ leen déglu. Mm-hmm. xëy na dañuy wax nañ leen déglu xëy na dañuy wax si si ñuy wax. Mm-hmm. ñu toog ak dal mm, décembre janvier février ba mars. Mm-hmm. waa Richard Toll lañu ñoo ñoo ñu interpellé au niveau du groupe daal ne nekkati groupe bi dañ ko doon piraté suñuy message di dem directement ci au niveau derage ministère de la santé. mais heureusement yàlla bi ñu tiim ay magum jëmm lañu responsable nekk kilifa. mosuñu wax wax ju dépensant. à chaque fois dañu jël yëpp ñu wékk ko yàlla. Mhm. ah yàlla baax na yàlla baax na yàlla duñu seetaan. Mhm. waaw nañ delloo suñu bopp ci yàlla. Mhm. dégg nga léegi nag euh, bu ba de de treize amee ah, euh, le treize mars. waaw waa Richard Toll duggee avant le 13 mars wax ñu loolu ne ñoom seen euh, médecin chef moo woote niveau du ministère DRH bi daal ne ko jeex na jeex na de toute façon dinaa leen yónnee seen notification fin de contrat. léegi ñu wax ñu ko ñun ñun ñu daal dem gis suñu directeur ñun tamit régional bu hôpital région de maatam mu nekk nit ku accessible mm-hmm. ndax bureau ma fa dëgg yàlla doxul moom suñu diggante ak moom secrétaire am mm-hmm. du benn du ñaar ñu am fa problème ñetti yoon dañuy dem gis ko ci biir bureau am mm-hmm. El na Arona Ndiaye de maa ngi koy saluer daf ñuy jël approché ñu comptable bi jox ñu xaalis ñu faj suñuy soxla du question dara yàlla rek tax may wax dégg nga loolu yëpp defal nañu ko foofu daal ne loo leen soxla soo ba jant soo problème boo leen am ñëw leen gis ma dégg nga ñu dund ko ak moom moom mu woote directement ministre bi kii Assafoula. Euh, DRH bi ci saa si même tontu. jeex na jeex na de toute façon dañ leen yónnee seen. fin a ngi nekkoon seen fin fin kii contrat bi mois de décembre wala nekk na si janvier bi. mars la ñu liggéey nañu ba mars ñuy soog a def ay. ay ay kii mars 2024 bi. 2024 bi parce que contrat bi décembre la jeex. décembre 2023 ñun ñuy toog di muñ en espérant que dañ ñu signé. Mhm. ñuy xaar di xaar di xaar. ba euh, décembre. ba décembre. nga. Mhm. ba mars ñu dem suñu bureau euh, directeur bi. Mhm. hôpital régional Matam. Mhm. moom mu jël ko woote. daal ne ko contrat bi jeex na jeex na de toute façon da leen envoyé seen notification fin de contrat. fin de contrat léegi nag bu ñu bu ñu waxee loolu. directeur bi daal ne ah man di lu ma ci man dinaa ko def incha allah. porter combat bi li ma ci mën dinaa ko def. Mhm. ak suñu médecin chef de passage maa ngi koy nuyu docteur mhm. c'est pas le mais il faut parce que boobu ba tey mu ngi jàpp ci combat bi. Mhm. ak euh, suñu major Bénédicta. waaw ak tout le personnel pédiatrie. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. dégg nga ma def euh, ñu def retour si laa dugg ci groupe bi daan ne comme ni sénégalais yëpp di wax l'heure est grave. l'heure est grave l'heure est grave jug leen yéen ñëpp. Euh, parce que avant loolu dañ doon dajale 2500 2500 parce que amatuñu moyen. amatoo leen moyen te yéen a ngi si àll bi. ñu ngi ci àll bi dañ doon dajale 2500 pour ne 6 personnes ñu dem ministère ñun jóguñu tëb tëb rek groupe bi dem fa. dañu dajale 2500 man ni maa doon trésorier bi. ñu jox ma xaalis ma di ko dajale. finalement au finish laa dugg naa ne group bi ah l'heure est grave jug leen. ngeen uti ji kenn ku ne pas soo leen dee lebi lebi. Mhm. ngeen ñu ñëw tase au niveau du ministère ñu dem xool ñu lan moo téye suñu kaa lan la mhm. ba ñu defee loolu ñu ñëpp ñu joxante rendez-vous waa Ziguinchor ñëw Tambacounda Kaffrine fépp ba luga fépp infirmier nekk nekk ci groupe bi ñëw nga mhm. ba ci àll bi ñu newoon ci àll bi ñoo xam ne ñoom tamit ñu dund condition yu métti métti nekk ci àll bi mhm. ñu daal di ñëw bañ ñëwee am ñu ñu téye ci bunt bi mais ñu teel ñu signalé ñu def suñu plan ba yéeg Mm-hmm. ba ñu yéegee min ah, bi moo ñëw daal ne yéen kan ngeen di seet man en personne li ful bi bëri bëri maa jug ak respect mm-hmm. man ko madame laa DRH mun ma ah man ko ñu ñoo jóge ci àll bi mm-hmm. nekk ah, Matam waa Ziguinchor ñi ngi fi di cité ainsi de suite mi ngi fii Podor mi ngi fii Tamba mi ngi fii Kaffrine mi ngi fii Louga mi ngi fi ñuy dund dund yu metti ak suñu njaboot ci àll bi di ñëwoon ci yow seetsi la pour waxtaan ak yow ci jekk ak teranga en tant que femme en tant que mère. Mm-hmm. mu ne ma mënoo maa waar. par respect man ko yaa booy mu ne ma ah man ko man mënuma la waar dem mm-hmm. toogaat sama place. xam naa ainsi de suite xelem xelem yedd ko. Mm-hmm. mu daan ne waa Fonds mondial. mën ngeen toog de toute façon man dama leen recevoir Malick Seydi moo leen di recevoir. ba mu waxee loolu ba daaneel man tamit ma ma ne waa Fonds mondial ñoom ñëpp jug taxaw man leen jug leen taxaw. boobu gendarmerie yi ñu ngi ñu wër ñu ngi leen wër man leen jóg leen taxaw bañ jóg taxaw man leen yéen ñëpp wàcc leen ma wàccee leen dem ba ci bunt ba parce que dama dañ bañ ñu ñu xool ñu ci bokk ak ñu ci bokkul mhm. bañu demee dégg naa am na ñu ci bokkul ñu ñu bu max ba daaneel foofu ci waxu nit ñi mhm. les on man leeru ma gisuma ko ay wax ay wax mhm. bañ demee toog ak diir ci bunt ba ñu yónnee waa seen vigile yi ñu ñëw ne kaay leen wuyu ci kaw bi ñu yéegee ci kaw wuyu maa Malick Seydi de passage tamit maa ngi koy nuyu moo topp ci DRH bi ndax moom dalal nañu defal nañu mm-hmm. daane de toute façon maa ngi dinaa porter seen combat quel que soit alpha ndax nit la mm-hmm. recevoir nañu mm-hmm. même ñun duñu amul rendez-vous ak DRH jóge ci àll bi nee nañ ko ci àll bi lañ jóge rek àll bi xam nañu Sénégal fond fond Sénégal lañ ñuy sànni ñu ñëw ci ci ci ci foofu au moins que mu dalal man ñu dalal même suñ dul jëlaat sax mu wax ñu wax ju rafet dalal ñu ay kilifa comme moom ñoo ñëw foofu ndax yow bul jël sa bopp def kilifa xeeb ñun ñu ñëwoon foofu kenn ku ne kilifa nga sa biir kër waaw kenn ku nekk la ak li la yàlla may dégg nga maa ngi Seydi daal di dalal ñu daal di ne ah de toute façon dinaa porter combat bi li ma ci mën daal ci def nangam nangam ci saa si lañuy jox suñu notification fin de contrat 13 mars ci saa si kon si saa si lañ ko defaree foofu noonu. jox leen jox ñu ko. keroog boobu daanaka du man maa doon defal nit ñi di wax delloo leen seen bopp ci yàlla julli leen ci Seydina Muhammad fii yàlla rek fi nekk. Mm-hmm. da nga gis ñi ay kilifa seen bët ay mag nag parce que ku génn 2008 yaa ngi ci quarantaine yi. yaa ngi ci quarantaine waaw ay magum jëmm ñoo fa nekk nekk ay kilifa yoo seen i famille yoo seen i njaboot. Mm-hmm. daanaka seen bët yi taana ni ñii jàpp nañu seen xol yi ku fa amoon tension di nga daanu. Mm-hmm. ñëpp ma leen di defal delloo leen seen bopp ci yàlla julli leen ci Seydina Muhammad sangu sang yi yàlla baax na yàlla bëri na sutura waaw ku nar xaw xaawi suñu sutura yàlla na suñu borom xaawi ci sa sutura ci barke salaatul fatiha ci barke leer leeru salallaahu ala muhammad loolu laa leen dan wax ne leen muñ leen wàcc leen ñu dem ñun ñëpp muñ wàcc dem ba ñu wàccee tamit amuñu jotu wax leen kenn ku ne danga mer dem sa kër ñibbi mhm. ba nii may wax ak yow daaw ba ren li ñu woor xamuñu ko fin de koor gi presque ñu ci woor bëriwul mhm. sama benn collègue ma nga ne falaa ko bàyyi maatam dafa def fausse couche mhm. ma nga ne mhm. échographe bee ngay nen man mii dal na ma ba nii may wax ak yow am na keneen ki ma woo barki dem ma sama benn loxo dafa dañ man ko nag stress bi mi ngi commencé stress bi moo leen ay magum jëm nga bëgg leen yóbbu à la retraite forcée ñun loolu la ñu dund fi mu nekk nii d'après man def naa dix 19 ans de service 3 ans bénévolat 17 16 ans de service ci hôpital Dakar yëpp mhm. poste de santé yi centre de santé yi waaw ku ma gis kenn ku ne xam na ni man daam defar lañ ma daan wooyu liggéey dama ko daan jox àqam ba mu mat sëkk mhm. pour l'instant ñun amatuñu leen lu ñuy prouver ci santé lu dul encadrer suñuy cadet mhm. waaw fan nga nekkoon avant euh, recrutement bi ban centre nga nekkoon ba hôpital nga nekkoon maa ngi woon Albert Royer pavillon ci professeur Mansour Faye Mansour maa ah. maa ngi woon Albert Royer Albert Royer nga mm. nekkoon waaw ah. foofu ñaata temps nga fa liggéey ak def naa fa deux ans naa fa deux ah, amoon nga fa contrat waaw amoon waaw amoon naa fa contrat léegi lan moo la jaraloon euh, nga daal di bàyyi sa contrat boobu dem si recrutement Fonds mondial te amoo leen sax contrat ba ca war waaw parce que dañuy wax en général parce que ngoo toogee di xaar d'après combien temps d'années ngay xaar lii ñu wax ah di xaar embauchement mais Sénégal koo gis xam nga branlon moo fi nekk mhm. même au niveau fonction publique ancienneté dañu xoolee dossiers yi mini euh, euh, président de la république son excellence tey su génnee trois dossiers yi mhm. daanaka jëluñu ancienneté mhm. xale yi ndaw génn dañuy soog a jël par branlon ah. man maa ngi woon ci condition yu baax à Albert waaye mm-hmm. waaw nekk ci pavillon pavillon N néonatologie mm-hmm. ak pédiatrie ci professeur Makhtar Faye nekk professeur bu baax tamit mm-hmm. ndax def na tout ak euh, directrice euh, Issa Tall de passage maa ngi def nañu tout pour retenir ma si seen hôpital bi mais DRH euh, bi dafa refusé. mais gis naa man ku ñu jël ci pavillon fi ci euh, ci hôpital bi. Mhm. ñu bàyyi ko Albert Royer par Branlon. ñu bàyyi ko par Branlon. Mhm. waaw mu nekk professeur bu baax. Mhm. bu jox cër ay ay ay ay ay infirmier ñun ñi di wax ak yow ba ma fa nekkee du question dara de télé laa nekk ku dee ak sa bàmmeel ñun ñi bañ fa nekkee bureau am amuñu fi amuñu fi sens interdit. suñu doom di feebaree professeur bi ñun duñu dem ci messin yi de mm. directement ci professeur Makhtar Faye la ñuy dem moom moo ñuy seetal suñuy doom mm. suñu membre famille du doom ku ci sa doom feebar mm-hmm. xeeb nañu médecin yi mm-hmm. te bien sûr que médecin yi da leen former former bu baax de passage ñu koy maa ngi koy nuyu ñu ko ñaanal yàlla yan bi oyof ci moom li mu mën suñu borom defal koy taw féexal ci njabootam waaw trois mois ngeen toog trois mois sans salaire. muy mhm. notification ci euh, bi ñu leen. Euh, mars treize mars voilà sans notification bi ñu leen dàkkee jamono jooju kan moo nekkoon ministre de la santé. Euh, Marie Xemes la moo fa nekkoon. Mhm. moo fa nekkoon. est-ce que yéen jéemoon ngeen def ay démarches ci loolu. waa parce que dafa tasanteeg mu nekk fin wu régime bi. Mhm. mu nekk ak élection. am nañu syndicat sax ñoom seen syndicat yi jëm nañu. gis ak DRH bi ba ñu mm. ñëwee loolu la njëkk a wax ah yéen da ngeen bootu ci ginnaaw syndicat yi bëgg ma mm. ñëw attaqué nangam nangam mm-hmm. te alors que ñun ndimbal rek lañ dañ ñaan tamit mm-hmm. ndimbal ñu xool tamit ñu ñun ñu arrêté pour lan la mm-hmm. ah li tax mu arrêté ñu ñu jël ñeneen waaw même li ñu arrêté arrêté loo bi ñu nekk ñun am na ñeneen ñu ñu jël ñu seen préfet intervenir mu jël leen am na ñeneen ñoo xam ne ñu sukk ci tànkam di ko saraxu di raam bay jooy mais ñun suñu dignité mayuñu ko. voilà yaaw ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne dund ngeen ko diggante deux mille euh, deux mille vingt trois ba deux mille vingt quatre euh, ak situation bi ndax ngeen ko dundee or fi nga xamante ne si moo ci yeneen région yi nga xam ne nekkoon ngeen fa mu metti lool ngeen nekk ay mère de famille ay père de famille ngeen xëy jotatoo leen seen salaire. waaw métti na ba jéggi dayo situation bi métti na daanaka dañu fa luyee suñu studio. Mhm. war ko fay. Mm-hmm. war a dundal suñuy njaboot war a fay courant war a fay ndox mm-hmm. war a fay scolarité mm-hmm. mu metti lool même sa jëkkër lu mu la soutenir soutenir ak li nga dencoon dacoon def ay wecc tamit yépp génn na ba jeex tàkk waaw waaw metti na trop sax waaw parce que man c'est la première fois sama àdduna dëgg la ñàkk yaay ñàkk papa ñàkkay wayjur say maam yi la yoroon yëpp metti na trop mais tamit lii lu ko gën a metti dañ ma laa ñëwaat tegaat ma ci yow yu condition traumatisé ma daal ci 17 ans de service. nga xëy ginnaaw 19 ans de service. ma ñu ñëw lii dal natt bi dalaat sama kaw. tey ak euh, ministre bu bees bi gouvernement bu bees bi lan ngeen di xaar ci moom euh, muy Ibrahima Sy nekk ministre de la santé et de l'action sociale. waa de passage maa ngi maa ngi leen di nuyu di nuyu sa son Euh, Bassirou Diakhar Diomaye Diakhar Faye waaw Bassirou Diomaye di nuyu euh, son premier ministre mhm. Ousmane Sonko di nuyu suñu ministre Pitel mhm. mhm. Ibrahima Sy waaw di ñaan tamit wax fa dëgg yàlla santé bi bokku de progrès mi ngi mi ngi ci biir daal li ñu war a réforme li ñu war a defaraat au niveau hospitalier yi ci biir ci biir di ci infirmier yi renforcement personnel parce que métti na mhm. au niveau de Dakar avant may dem liggéey bi métti na au niveau àll bi tamit euh, sous région yi métti na waaw mhm. ah, la place de quatre deux moo fay liggéey dafa métti mhm. dafa métti personnel amul ci àll bi waaw ah. jàppale leen si. waaw dañ koy ñaan yàlla rek dañ koy ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ko ñaan waaw ah, mu jàppale ñun ñun kenn ku ne wax fa dëgg yàlla lii lu la yàlla séddoo loolu nga am muy santé bi ndax man daanaka dem naa ba ne daaw bay décidé ne damay bàyyi yàlla rek mi ma tiim xam ma woor trois jours yoo xam ne successif yëpp dama ciy jug ay deux heures du matin di naafile di wax yàlla ba maa ngi def commerce mi ngi dox yàlla wan ma sama métier ci troisième jour bi la ma waa ministère santé woo ma xam ne kon santé bi mooy sama métier mhm. kon su ma demee ba dundaat lii tamit day metti metti na mhm. waaw di ko ñaan tamit di ko tàllal loxo mu casé ñu daal parce que 19 ans de service amoo embauchement bu dëgër du fonction publique du contracteur ministère mhm. prestation prestataire sànni la ci àll bi utiliser la à bon temps mhm. ne la comme si que ñoom dañu amoon lu ñu daan régler seen biir waaw ñun ñooy cible yi ma maire yu màgget yi yóbbu ñu à la retraite dafa mm-hmm. metti li ma li olof Njaay di wax mag mën naa mën naa bàyyi ci biir réew mm-hmm. waaw bu ko xeeb parce que tant d'années d'expérience mm-hmm. même service boo dugg dugg dugg sa liggéey du bokkul ak service boobu toujours di nga am loo leen rawee mais doo leen ko wan da fesee li may wax suñu major xam na ko ci cas exceptionnel yi rek ngay ñu mën a xam waaw ci urgence du amee sama major li may wax xam Abdoulaye laa jóge hôpital de référence déedéet mhm. chaque jour maa ngi topp ci ginnaaw gone yi mhm. chaque jour mhm. waaw dinaa am nu ma doxalee ak ñoom sans ma vexé leen def leen nii def leen nii déedéet ba pare damay tiire ci ñoom tamit di jëlaale expérience ci gone yi waaw mi ngi noonu ñu bàyyi la nga tàggatoo wax sa kàddu bu mujj. waa di leen jaajëfal waa Dakar Buzz ndax fa euh, dëgg yàlla li wane ne boobu ba tey nag wane ngeen ñi askan gi ngeen fi nekkal. Mm-hmm. waaw lu waaye am ci lu ko metti rek ci yéen la koy ñëw jooytoo. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla seen liggéey bi avancement bu mag a mag a mag ngeen dem ba am seeni yëfi. yu yaatoo yaatu daal waaw seen télé bopp seen lépp ci yaatoo yaatu ci barke salaatul fatiha mhm. ci barke leer leer salaa ala muhammad leen jaajëfal bu baax a baax kontaan naa ci yéen waxuma ah, ok voilà mbokki internet yu Dakar Buzz gis ngeen waxtaan bu yaatu bi nga xam ne daal nañ koy daal di sekk ak euh, Ebena Yaawu voilà ci lu jëm rek ci situation bi nga xam ne ñoom infirmier d'état yi ak hygiéniste yi ak ñi nga xam ne moo di euh, infirmier yi ñoom nag ak assistant sage-femme d'État yi ñoom ñu ngi ko doon dund ginnaaw recrutement bi nga xam ne waa Fonds mondial daan na ko woon def ci atum 2023 si seen contrat yooyu sax nekkoon contrat de 10 mois waxoon na jeex mois de décembre ñoom nag notifié wuñ leen ba taxoon sax ñu continuer woon euh, di liggéey jusqu'à mois de mars 2024 teg ci it euh, ca loole it ñoom ñooñee sax jotuñu salaire ci anam bi ñu leen dàkkee it ci ay ña nga xam ne ay mère de famille ay père de famille nekk anam bu doy waar ñoo xam ne da nga leen a jëlee woon biir Dakar wala jële leen ci yenn région yóbbu leen fu sori ci lu fi mel ni ay côté Tambacounda côté Ziguinchor Ourossogui maatam nga bàyyi leen foofu nag sans salaire ñu débrouiller seen bopp ba tey stress bi am ay dégâts ya nga xam ne commencé na koo def si ñoom su ma su ma sukkandikoo rek ci kàddu yi nga xam ne ebena daal na koy eba daal na koy wax mu nekk lu doy waar ci ba tax nag ñoom ñu ngi sàkku ci ki nga xam ne nag moo di le nouveau ministre de la santé et de l'action sociale di Ibrahima si mu daal leen gestuwaat bu baax a baax xool naka rek lay def ba indi ay solution ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund wante sàkk seen salaire ñu daal leen koy fay bu ñu leen a mënee deflaat ay contrat ñu daal demaat liggéey ci li nga xamante ne si nag moo di ci wàllum wér-gu-yaram ci santé man Ndiolé Thiam ngeen ci doon àndal di leen jëfal bu baax a baax ma ci doon ànd ak sama cadre bi di Mohamed di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox di daje beneen yoon incha allah.